Alpha Samb di directeur technique Ecotra di wax ne euh, ren mooy juróom benneelu yoon monsieur Abdoulaye Sylla président directeur général bu Ecotra yebal ñu fii ci Touba yebal ñu ci wetu sëñ bi pour que lépp li nga xamante ne am na ko ci matériel am na ko ci ay nit yu koy liggéeyal am na ko ci alal ju muy def nañu jël lépp toxal ko indi ko Touba ñetti semaine nekk ci euh, wëyu sëriñ bi yàlla def mu boole ñu ak sëriñ Abdou Latif mu nekk ku ku ku ku yéwén mu nekk ku disponible lépp li nga xamante ni lii euh, moom la sëñ bi bëggoon ci Touba mu duñu ko wax ñu di ci xëy di ci gont di ci fanaan di ci góor góorlu monsieur Abdoulaye Sylla di sant sëriñ bi bu baax di sant Euh, sëñ Abdou ci taxawaayam ci ni mu gunge ci ni ñu yiire nekk loo xamante ne lii lu am solo la Abdoulaye Sylla di wax na euh, màggalu ren dafa di màggal gu particulier ndax dafa nekk ci digg nawet nekk ay jafe-jafe moo tax mu sas ñu mën ne li ngeen daan def at yi passé yëpp na ngeen ko multiplier ba ndox lu ngeen ci man ñi ngeen def ko ba ndox jógee ci Touba tali ngeen defaraat ko cet ji ngeen def ko ba mu mat sëkk loolu suñu équipe yu fi nekk guddi ak bëccëg suba ak ngoon si la ñu nekk nekk ci gannaaw sëñ Abdou Latif mu duñu wan duñu diggal ñuy def di sant yàlla bu baax a baax ne lu mu ci def rek xeeb na ko bu sañoon dana mën a def di fois li nga xamante ne moom lay taxawu ndax amul dara lu dul sëñ Touba amul dara lu dul Touba amul dara lu dul yoonu murit donc li muy def nii dafa di loo xamante ne lii naturel la te bu sañoon yàlla may ko kattan ba muy def lu weesu lii at mu jot ci tubaa di ko defar sëriñ bi mu ngi sàkku ñaanu sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax yàlla jàppale ko taxawu ko ba Ecotra gi nga xamante ni moo ko jiitee yàlla dëgëral ko ba mu mën continuer di indi man-manam ak kattanam fii ci dëkk bi di ko liggéeyal sëñ Touba di ko liggéeyal sëñ Muntaxa di ko liggéeyal mbokku jullit yëpp. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di dolli sant sëñ Abdou ci taxawaayam di koy wax nu ñu koy yóbbante ci sëñ Muntaxa na ko Abdoulaye lay Sylla nee na jël na boppam jël na léppam jébal na ko ko mu ngi ci waawam lu mu ko sant guddi ak bëccëg lu mu bëgg ci moom balaa muy def lenn ci loolu lay jëkk def ci loolu lay jublu ci loolu lay taxaw di ñaan yàlla yal na yàlla dooleel ko yal yàlla jàppal ko yal na yàlla kàttanal ko ba loolu mu am yéene ci Touba yàlla mottali ko li mu am yéene ci Ecotra yàlla mottali ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. ñu ngi leen di sant di leen gërëm man maay Fallou Seye maay coordonnateur euh, at bi di juróom-benneelu at euh, Ecotra di mobiliser di dajale matériel am ak personnel am yëpp indi ko Touba bu ngeen xoolee suñ ginnaaw. matériel bi fi nekk euh, ay fukki camion ñi ngi ci lu ëpp fukki lu mat 16 euh, camion ñi fi ay camion benn ay citerne nga xam ni moom la ñuy mbonkee ndox mi def ko ci pour génne ko ci dëkk bi ay moto pompe yoo xam ni dañuy dem ba téeméer ak juróom fukk ci mètre bu la ñuy la ñuy la ñuy pomper par heure ak euh, cuve carburant bi nga xam ne installé nañ ko fi aussi nga xam ne trente mille litres de carburant moom moo ci nekk pour approvisionner matériel bi def liggéey bi ak matériel bi nga xam ne mooy def logistique bi bu ñu bëggee yóbbu machines yi moo koy transporter ak véhicules yi nga xam ni ñi coordonné activité bi ci lañ nekk donc ci wàllu liggéey tamit li ñu tàmbalee woon mooy mbale mi mbale mi euh, kër euh, diine yi ñëwoon ci mbali ci ci ci mbalit mi yëpp bu ci nekk camion Ecotra ma nga fa wala machine Ecotra boo xam ni bu ñu dajalee mbalit mi ñoom ñoo koy tonni fexe nuñ ko génnee ci dëkk bi. dëkk bi nga xam ni sàmm mi nga fa te ma leen di ñaax tamit bu ñu fa jógee ñu xooli ko lu mat 1,5 defaraat nañ ko foofu. ak Daaru Xuddoos tamit lu war a mat 500 mètres lu toll ci 2 kilomètres de tali yoo xam ni réparé nañ ko ci biir dëkk bi biir université bi aussi defal maanaam euh, UFR bi yoo xam ni war na war naa ubbi ci at mi fexe nañ ba euh, cours bi nekk devant ñu defar ko ba nga xam ni bu tawoon tey jii du taa ba tey nit ñi euh, ndongo yi nañ fa mën a nekk jàng ci seen tey bakkan bon ci wàllu pompage bi aussi comme weeru nawet ci ci nawet bi lañ ñëw dëkk bi ñun ñëpp gis nañ ni mel ak ndox donc am na ay kër kilifa yoo xam ni pompé nañ fa lu war a toll ci onze millions de litres do génne ko ba pare def fa terrassement nga xam ni seen gan yi buñ dikkee nañ mën a màggal ci jàmm. bon Soura aussi quartier la boo xam ni daanaka quartier bi yëpp dafa xawoon ndox mi daf ko xawoon euh, tënk lu mel ni même jàkk ji ñu daan jullee ay yenn kër waaye fi mu nekk nii bu ñu demee pompé nañ fa lu war a toll ci vingt cinq millions de litres d'eau génne ko def terrassement yi ba fii ak suba bu soobee yàlla dinañ ko eggale boobu tamit ñu ngi leen di ñaax pour bu ñu kii ñu dem xooli ko. liggéey yi nga xam ni moo fi des nag mooy Madiana tàmbali nañ def pompage bu ñu paree nañ ko terrassé bu soobee yàlla ak aussi kër euh, dëkkuwaay yi nekk Touba nga xam ni euh, fa lañ ñu yabal fu ci nekk yóbbu nañ fa suuf ngir sëkk ko soit ci biir kër gi bu dee dafa am ndox wala ci buntu kër gi donc loolu ñu doon ànd ak liggéey boobu ak sëñ Isaaxa Mbàkke donc lu ëpp téeméeri camion def nañ ko ci te li nga xam ne indi nañ ko suuf ci Touba nga xam ni moo dem ci terrassement yi ñu doon def ak ci sëkk kër yi ñu eh, kër kër kër euh, ñu dëkkee Touba ak ci tali yi fi mu toll nii ëpp na 500 camions maanaam ëpp na juróomi téeméeri camion te dañuy continuer ñaari fan yi nga xam ne maa ngi ñaari fan yi nga xam ne moo ñu fi desee dañuy géem a continuer ci ci liggéey boobu donc loolu moo doon tënk bi ci wàllu liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci turu Cheikh Mouhamadul muy Serigne Touba te liggéey bi di liggéeyam yàlla taw feexal ñu ànd ak moom liggéey bi kii turam lay yëkkati kàddu leen nuyu ak turu sëriñ Cheikh Bassirou Abdou Khadir bi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ñi taxaw magalu Touba yëpp ñu di ko tuddee président comité d'organisation magalu Touba ñun ñoo ànd ak moom liggéey boobu. muy seen mbokkum bi mi ngi xam ne maa ngi tudd Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif bu ko ci taalibe bi sëriñ Mountakha yi ànd ak moom liggéey bi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi ma di leen nuyuwaale ci turu sama mbokk mi ma taxawal sëriñ Issa Mbacke ndax dañoo ànd liggéey bi seen naa gën a leeral li tax tudd nañ ko léegi Fallou Seye tudd na ko waaye ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp sant ñëpp wax ji dañ koy tënk rek xam la ne yitte ak yéene président si la ci dëkk bi ak ci liggéey Serigne Touba yàgg na ku ko ñi ko xam ñëpp ci loolu lañ ko mas a xam bari na ay xaritam bari na ay bokkam ñu ne ci dëkk bi koo ci wax da lay wax ne la Abdoulaye Sylla dañ ko xamee ba léegi ci Pastef yenn liggéey Serigne Touba ci la nekk te Abdoulaye xamoon nañ bu baax diggam ak sëñ Sidil Mokhtar ndax jitteem pastéefam sëriñ Sidi Moxtaar xamoon ko ci moom ba defoon ko doomam defoon ko xaritam maa nag moom liggéeyal sëriñ Tuubaa lu yàgg ba sëriñ Sidi Moxtaar wàcc sëriñ Muntaxa mii bi mu yoree liggéey bi sëriñ Tuubaa bi itam waxtu magalu Tuubaa ñëwee président Abdoulaye Sylla benn baat lay wax suñu yitte jëpp nañ ko jëmale ci Tuubaa ba màggal gi jàll ren bi màggal gi jubee directeur Assane Sylla mii di sama xarit di sama jarbaat mu ñëw ci man déplacé wu ñëw beeg si ne président Ablaye moo ma yebal ngir ñu waxtaan ci lépp luy tax liggéey bi baax nu ngeen ko bëggee ñu defee ko noona wax ne président Ablaye wax na ne fu ñu am dara sànc yëpp nañ ko tëj fu ñu am matériel nañ ko déplacé mu ñëw Touba liggéey Touba bi rek nay suñu yitte bi ma Assane waxee loolu man wax ko date bi ma bëgg ñu ñëw le 28. ndax le 29 la ñoo waroon tàmbali da 28 bagage matériel matériel bépp ñëw le 29 bi ñoo dee tàmbali maa leen joxoon programme ñeenti fan yi ñuy bale camions yi dama leen di soxla ci mbalit mi ndax mbalit mi day bari nit ñi day bari il faut ñu jàppale ñu ba mbalit mi génn ba pare ñu doo dugg nag ci liggéey ma ngacc ndox ak suuf noonu lañ ko defee ak defin war a fet te bala maa jàll foofu nag dinaa fa sant chauffeur yi vraiment chauffeur yi jàmbaar lañ loolu nangu nañ lool pasteefu nañ lool ci liggéey bi waxtu wane dama leen di xool ci biiru waar yi di yéemu ci ñoom te la ci gën am solo mooy koo ci groupe boo ci boole benn chauffeur Ecotra bu ñëwee danañ jàppaat ci loxob chauffeur ba nga leen booleel di leen dima seereel ak seenu cant ba bis bi ñuy wàccee rek am na ci chauffeur boo xam ne ba 10 heures ci guddi wàccut ndax mbooloo ma ñoo ko ne mënuñoo dem te sëñ Cheikh ñëwut te yow mënuñu fee bàyyi noonu la toogee ñoom ma ne ko heure bi nga waroon wàcc jàll na waaye dinaa ko wax sa kilifa noonu woo Fallou say wax ko te ñëpp noonu lañ liggéey waaye kon bu may dellu si damay jot ci cantu sëñ cantu sëñ Mountakha ci président Ablaye Sylla sëñ Mountakha ah. sant na président Ablaye gërëm na ko ndax xam na yéeneem ci liggéey sëriñ Touba waaye nag nimmalul jàmm bi wala tafeexu taale bi mi ngi yem ci nga am yéene liggéey sëriñ Touba te la nga mën lépp nga di ko ca def bu boobaa sëriñ Touba moo lay fayal boppam moo lay dimbaleel boppam moo lay taxaw ba nga jàll ba weesu ba nga yemoon loolu président Ablaye moom na xelam dal ak njabootam ci ne sëriñ Touba dana ko gàttu ak ndimbalam dana ko gàttu tafeexam man rek damay toog ci barab ak di wax ak nit da leen man day xaw ma dara aw ma dara waaye li may liggéey liggéeyal sëriñ bi moom bokk na ci li may fas ñaanal président Abdoulaye la yàlla sàmm ko yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko mucc yàlla defal ko yokk ba li mu bëgg liggéey sëriñ Tuubaa ci dëkk mu def ndax bu ko yàlla àggalee la yéenam dey boo amee ay moroom yu new liñ bëgg ci dëkk bi dana fi am ndax dëkk bi nag benn loxo da ko mënta bis seen mokk état kese mënu koo def benn loxo mënu koo def ñaanuk sëriñ Tuubaa gum ñaan boroomam la boroomam may ko ko kenn xamul fu dëkk bi yem tey kenn xamul fu mu yem ëllëg dëkk bi day màgg di jàll rek li ci am solo mooy borom Pastef bi jàpp rek fas yéene noo ànd defar dëkk bi. kon loolu Abdoulaye Sylla ma nga ci ñooñu noo ngi koy ñaanal yàlla sàmm ko àggaleen ko yéenam cantam googu nag laay ak see ci directeur général Assane Sylla Assane dama koy sant ndax particulièrement liggéey bi nu mu ko ñoree waaye man sama jarbaar la sama xarit la te Pastef bi mu ci liggéeyee daf maa neex ndax damaa xam ne li ma koy yéene ci lu baax lii moo koy may ci cantu Assane gi nag ci laay jàll ci ñi ma àndal daa ca teg alfa Samb mi wax léegi den magum bu baax moo xam ne leen di taxaw di leen soññ di leen gën a teete ñu ànd liggéey bi sant ñi nga xam ne ñoom laa boole woon ak Serigne Issa ñi ma ca mën a tudd tàmbale ci Fallou Seye wax na léegi ma doon coordonnateur bi wax na fi liggéey bi jaar moom li fi tudd rek doon na bilan noonu laay sante ñoom Sadibou Sylla ñoom caporal ak Malick Ndiaye rek bu ma bu ma limee rek ñoom Arona ñoom ñëpp comme bu ma limee damay joom te duma mën a àggale waaye ñëpp laa sant waaye cant googu li muy am am solo ñoo xam ne sëñ Mountakha da koy wax boo defee lu baax dal naa li ma koy gis-gis yàlla moo gën a gis sëñ Touba moo ko gën a gis ba tax ma leen sant yàlla gis na ko sëriñ Touba gis na ko te kenn ku ne la nga def yàlla la koy fay sëriñ Touba fay la kon sant yàlla rek la ku am tawfeex yi ci àdduna si am tawfeex yi mën a liggéey dara am tawfeex yàlla xel la ji nga liggéeyal ko Serigne Touba rawaat na ci dëkkam bi rawaat na ci bisam bi loolu yàlla moo la ko fay Serigne Touba moo la ko fay ndax tawfeex ji rek mi ngi ci fekke ko tal ko man ci dara yàlla dimbali ba nga def ko dañu des moom fekk yàlla ko moom kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp même ñi ñëw tey jii ñëpp ñu ngi leen di sant ba ñuy door a jógee Dakar ak yéen journaliste yéen ñëpp ñu ngi leen di sant ndax jëf itam bu rafetee mat ñu xam ko da ciy baax te lii ngeen def mooy tax ñu xam li ñu fi def liñ fi def nag li ma wax rek yàlla gis na ko sëñ Touba gis na ko sëñ Moutakha gis na ko waaye bokki taalibe yi xam ne ah, ECOTRA def na fi lii ci ndigal président Abdoulaye Sylla ah, ñi ñi ko war a feeti taxaw taxaw nañ ko def nañ lépp liñ ci bëggoon lépp am nañ ko man mi àndoon ak ñoom de sama xol sedd na sama xel daal na te maa ngi leen ñaan sëñ Touba mu fayal ma leen fayal sëñ Moutakha ba noppi sëñ Issa Mbacke mi ngi sama gannaaw biñ balee ba noppi sëñ Moutakha soxla ma ci yeneen liggéey moom laa boole ak Fallou Seye ak waa ECOTRA ñooy xam fu ñuy jëlee ji ndox ñooy xam fu ñu yóbbu suuf boobaak léegi noppaluwuñ ba li ci mujj barki démb dama wax euh, Fallou Samb ne ko damaa bëggoon Fallou Seye ne damaa xalaat kon ngeen wàcc ajuma ci ngoon mu ne nañ nu may ñu dem ba altine ci ngoon wala talaata ndax rek yéen a jure yéen a jure rek la nga xam ne fi ne li mu wax léegi yoon bii ñu war a defar saam lépp ci ñuy magasin tey jógee Kañoor même Dakar dafa jógee léegi dañuy jaar yoonu Kébémer ak ñu jógee Ndar ak ñi jógee foofu yëpp bu ñu gisee ba Touba ñëw kër Sëñ Sidi Moxtaar yoon wi téye dañuy jàdd seen di jox bu ñu daal seen di jox nag 30 bi nekk foofu ngir ñu mën a dugg si dëkk bi moom lañ programme yi nii ngir defar ko dimanche ak altine te booba liggéey bu rëy la ci dëkk bi ak lim-lim léegi ne def nañ ko ngir doon leen leeral ne liñ fi nekk lépp ci lu yombal liggéey bi lu ko yaakaar yaatal ci lañ nekk noonu ñi nga xam ne nag foofa liggéey bi desee dañ ñuy woo jàpp ne war nañ caa mën a taxaw war nañ caa war def dara te mooy dëgg dafa ñoo war waaye ñi ñuy dimbali balaa la ñuy war ñu di ci mën a feeñal kon ma dama leen fan sant sama wàllu bopp ñaan bi yàlla leen yàlla fay leen sëñ Mountakha fayal leen ba noppi man sëriñ Touba fayalaat ma leen ñi ci yëngu ñëpp bokk dañu yàgg ànd liggéey bi président Abdoulaye Sylla ñëw yàlla may ko fan gudd ànd ak wér may ko ñi ci ànd ñëpp te yokk société bi lool at mu jot ñu ànd taxawoon sëñ Mountakha magal gi ñu def ko at yu yàggee yàggee yàgg yu bëree yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah